jógee fii ci quartier bi délégué baa ngi taxaw muy sëriñ Omar Aw mu alaaj Doora ànd na ak jarbaatam ma nga ne toog Mouhamad jàllo ànd ak alaaj Tàkku Fay ñu gën koo xam ci sëriñ Fay diwaan alaaj sëriñ Fay diwaan Murit ànd ak Moustapha Fay muy xaritam di mbokkam ànd ak alaaji Mor la ku ne xam na ko ci kër gi ku ne xam na ko ci baas bi fii muy taalibe bu boo xamante ni bii wax dëgg yàlla li wolof di wax rek bi ñu ñëw daf ni namm ca yabu ca bu dul woon délégation bet damay dem yi ndax man li wolof njaay di wax ku sa kër tëgg ku nekk war ngaa mën a teewi ma nga ne toog ànd ak man mii nga xam ni maay porte parole quartier bii di indaale nuyoo jumaa ji ak lenn ci quartier bi ñu bari ñëw nañu am na koo xam ni léegi la àndoon ci délégation bi yàlla daa dogal aw yoon dab ko muy xaadim ngoom mu alaaj sëriñ ngoom diwaan murit léegi la jóge fii ci kër gi muy ñoo xamante ni yàlla dogal na li wolof di wax loo xam ni foo ko dégg war nga dem wëri loola bu la fekk ci sab gox da koy sant yàlla muy tànt bu mel nii di tàntu diine di tànt boo xamante ni tànt la ci biir tànt yi ci tànniif ndax bu ma juumul daa wax naa ko fii dama wax ni alaaj dooraaw ba muy xeex suuf sii di bayal bii lu mel nii moo taxan mu di ko xeex ndokk nag ba yàlla dimbaleenu ci mag ñu baax ñi ak taalibe yi nga xamante ñoo ŋànk daayira yi saa bu yàlla dogalee ñu am bis dikk ci jëmm ji nga xam ni yenn a bokk suuf sii nga xam ni lii la woy juróom wa doon xeex ngir lan ngir su sañan baatu laa ilaha illallah wala kalimatul alquran di fi jib ñu di ko jibal si fii kon loola dañ ciy doy ak sant yàlla di ñaan lii mbooloom mi saxal di mbooloom daaru xuddoos yàlla na ko yàlla yàggal ah damay xam ni foofu laay daaneel sama kàddu di jox kàddu gi délégué li ci mu continuer ko mu ngi nuyu sëriñ bi di ko siyaar di ko dalal jàmm di ko ñaanal yàlla toogaayam bi yàlla na ko yàlla yàggal daanaa wax fii nag daaw ku xool couleur bii xool nit ñii xool mbooloo mii dégg taarixu li fi jëf nga xam ni ah tubaarkàlla la seex Moustapha taxawaloon ci yoon wi seex Fane ma jëmbat ko ci sëñ Mbàkke di ko suuxat ko fi bàyyi ko sëñ Abdou Fattah ak sëñ Amadou Mokhtar loola mi ngi ci yàlla na yàgg jërëjëf. di la ñaanali tamit yàlla na la yàlla yàggal sunu kanam wax dëgg daayira bi daayira quartier bi la daayira géejawaay la daayira Sénégal la daayira àddina bi la te ñoom tamit ñu ngi leen di seedeel ni quartier bi ñu am ci ñoom cofeel lañ ndax bu ñu def bis bi dinañ dugg ci kër yëpp tàggoo buñ ci paree noonu lañuy ñuy nettoyé bayaal bi ba mu setaat wecc duggaat ci kër yëpp te berndey agsi na ci quartier bi mag ñi jot nañ ci ñu ngi leen di ñaanal yàlla na ngeen ko yàgg tànt suñu xol sedd na guy sëñ fàll yi tamit amuñu sa fay wax dëgg fépp fi ci dem ñoo ci ànd comme li ñuy wax nag ah lu baax ku ko dégg kenn waru la faa jiitu dem nañ ci kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànk dëkk bi ku mel ni madame la maire Sam Notaire dafa tawat délégation am ñëwoon na dem nañ ci ñeneen ñi tamit ñi ci jot invitation yëpp kenn waru leen fee jiitu ndax sëñ bi foog naa ni ah taalibeem yi ñoo nekk géejawaay fi muy jóge ba ñëw fii rafetoon na trop autorité yi dalal ko te ni ko sëñ Fallou waxee gën naa am dalum xel gën naa jàppaat daayira bi ndax nee na ñoom xaaruñu kenn du alal bi lañ ci yaakaar ndax yoonu sëñ Touba foog naa ni du xaalis lañ ci séentu liñ ci am mooy yëg-yëg rek te ku ci ñëw yi tamit ah ñaan yi ñu fi gis daaw feeñ na ci quartier bi kon sëñ bi ñu ngi sàkkuwaat ñaan di ko di la ñaanal yàlla na la yàlla yàggal sunu kanam vraiment jërë ngeen jëf